lu sabab ma invité la. mooy ñun Sénégal ñun waa Sénégal book ñun Sénégal lambda yi nga xam ne on n'aspire pas à avoir le pouvoir ou à être dirigeant ñun dañu am benn constat bu ñu def. moo tax ma ni xaaral ma invité kenn koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu politique ak jàng kook liir jeu bi. ni muy doxee ngir ñu waxtaane paysage politique sénégalais bi en ce moment. ni muy doxee yow noo ko gisee. politique Sénégal bu ma la woon tey nga defal ma analyse synthèse de 1960 à 2020 comment vous trouvez la politique au Sénégal ça se comme ça devrait se passer ou pas waaw xam nga question boobu dina jafe tontu de façon holistique mhm. c'est-à-dire que mais damay jël rek deux ou trois deux ou trois poñ Euh, Sénégal démocratie bu mag la. Mhm. parce que booy xool sax dañ naa la Sénégalais ñu ngi voté depuis le dix-huitième siècle. Mhm. donc démocratie bu mag la mun naa sax tey jii sans faire chauvinisme wala dara Sénégal mooy démocratie bi gën a mag ci Afrique. Mhm. gis nga Pape Siride il faut toujours ñu koy rappeler euh, en Afrique bi opposition ak pouvoir di rayante ci dëkk bari Senghor ak Cheikh Anta ñu ngi doon werante ci xam-xam. tout le monde se souvient biñ naan revue mu koy bindeek benn G S I G na Senghor ne ko noonu dañ ko bindee ñaari G ñoom ñaar ñu werante ci xam-xam ñu werante ci grammaire werante ci orthographe Senghor Cheikh Anta Diop finalement ne léegi tuddee naa ko taxaw euh, donc Sénégal dafa nekk dëkku débat. Mmh. dëkku démocratie dëkku débat dëkk boo xam ne aussi dafa bëri borom xam-xam bëri intellectuel parce que souvent d'ailleurs sénégalais yi fépp fu coow am ci Afrique wala parfois dans le monde euh, sénégalais yi woo na ñu dem taxaw foofu tu sais que en fait Nations Unies par exemple bu ñu naan les troupes de maintien de la paix Sénégal bokk na ci euh, dix pays yi nga xam ne ñoom looy ñoom ñooy gën a fréquent dans les opérations de maintien de la paix parce que c'est une armée républicaine mmh. donc démocratie la armée républicaine la et puis dëkk et gis nga Sénégal aussi mooy dëkk boo xam ne en Afrique président ba took na moom yàgg jékki-jékki ne maa ngi dem en 1980 muy Senghor 20 ans lañ ci teg euh, Abdou juuf ñu gagné ko ci ay carte période bi nga xam ne nit ñi miinuñu ko woon trop di di ko gis ci Afrique 2012 Ablaye Wade malgré lépp coow li amoon ci élection yi lépp Ablaye Wade bon jóge na fii ci jàmm dem na moom ak euh, son successeur di Macky Sall def nañ seen accolade. ku nekk dem na euh, donc mu nekk démocratie bu mag euh, waaye fi may jeexalee et loolooy problème bi mooy que ne dañu am classe politique boo xam ne tey ji dañu médiocre mm-hmm. muy ñu wax ko quoi mu mu leer. man dañu nul daal. waaw dañu nul c'est-à-dire que xam nga dëkk dañuy woowee toujours la vision du monde mooy gis nga homme politique bu ñuy werante parce politique dafa ñëw civiliser werante mooy léegi amatul xeex les les confrontations ne sont plus des confrontations violentes verbales ou physiques mais c'est que dañuy confronter ci dibee euh, ci débat d'idées confronter ci argument contre argument mais malheureusement depuis une vingtaine d'années euh, déggatuñu argument mm-hmm. li ñuy dégg personnel yow yaa sàcc lii yaa sàcc lii woo nañu la fii euh, mm, débat politique Sénégal dafa tënku ci ñaari mbir cest dire du ñu wax ci économie du ñu wax ci état de laïcité bi et cetera. Mhm. sax boo ko seetloo euh, li ñuy wax rek mooy euh, fichier électoral bi ak élection yi mbaa dina jaar loolu rek moo leen yóbbu ci pouvoir bi rek fichier électoral yow mi gëstu politique. Mhm. est-ce que politique fen ak sàcc rek moom moo koy définir mooy tax nga nekk un très bon politicien. absolument pas loolu kay loolu musiba la sax parce que suñu politiciens yi dañuy fen duñu wax dëgg. Mhm. ba pare dañ koy assumer da ngay gis mag mu ne léng wax loo xam ne ñépp a ko dégg nga ne danaa ko def mbala danaa ko manal eggale bu ngeen ma joxee seen i baat ñun ñëpp ñu dajale suñuy baat jox ko nit mbaa ñu jox ko groupe de nit mm-hmm. bu ñu yeggee ba ca la taxoon ñu jox leen ko lañ ñu waxoon ñu def ko ñu waroo ko wax jooju mm-hmm. on se souvient de la célèbre phrase de maa waxoon waxet te loolu ba tey mu ngi gën a am si pire mm-hmm. da ngay gis président de la république bu ne la <laughs> non loolu waxu campagne la woon c'est-à-dire fen dañ ko rusatu la def askan wi bi ci des te ñu seetlu ko ñun waa Sénégal ci politique yi. mooy sàcc. da ngay gis politicien boo xam ne benn ministre la conseiller sax démb weloo la doon dawal. mbala appartement la doon loué tey mu ngeeg juróom-ñaari kër. mu ngeeg compte banque yu fees dell oto ba muy dawal quatre-vingts millions gàtt gàtt essence ba cay dem daanaka semaine ak semaine cent litres la. sàcc googu ñu seetlu ñun ci politiciens yi. ak jël alalu askan wi góor ci. est-ce que loolu dafa bokk ci lii tax nit mën a nekk politicien bu baax. waaw xam nga damay delluwaat ci d'abord li ñu naan lan mooy politique xam nga ñetti at ci ginnaaw man ak sumay xarit dañoo bindoon benn téere tuddee ko politisez-vous maanaam dem leen ci politique maanaam ndaw ñi bu leen toog rek naan politique affaire u sàcc la affaire u fen la baaxul et cetera dem leen ci politique parce que coppite yi réew mi laaj ko wax naa la sànq ci njëlbeen la ndaw ñi ñoom ñoom majoritaire dans le leen toog rek di seetaan seen destin ñeneen yor ko dem leen ci politique euh, ci téere ñu ngi ci wax lan mooy politique Mm-hmm. politique du len lu dul gis sa réew mu am fu mu toll nga ñëw taxaw ne man dina fexe mu soppeeku dina fexe en tout cas ni muy doxee gën a baax gën a rafet gën a yiw mm-hmm. gën a set loolu mooy politique politique sax lu noble la c'est-à-dire que mooy la gouverner la gestion de la cité maanaam réew mi bu ku nekk toogee sa kër tamit du dox ñii dañuy nekk ci euh, ci association yi ñii nekk ci ONG yi ñii nekk ci médias yi journalistes yi et cetera loolu la ñuy woowee espace public espace public boobu nag ku nekk indi sa xam-xam yow si yaa ngi xam-xam communication journalisme média euh, moom mu indi xam-xamu divertissement bàcc et cetera man ma indi xam-xam peut-être université keneen ak keneen indi leneen lool mooy defar réew hmm. mais politique tey ji effectivement dafa soppeeku doon leneen mais nag loolu damay wax rek du Sénégal re parce que boo xoolee sax par exemple na suñu benn euh, concitoyenne sax laa koy woowee nekkoon na ministre ci gouvernement Emmanuel Macron newoon na man bañu ma wax lu dul dëgg ngir protéger Emmanuel Macron maanaam bañu ma fen hmm. tey jii Donald Trump mooy mooy jiite dëkk bi gën a mag ci àdduna mais li muy wax maanaam euh, Washington Post benn journal bu mag foofu génnee na maanaam ay téeméeri téeméeri kaddu yu mu yëkkati te du dëgg depuis bi mu faral. ay kàccam waaw waaw dañ koy faral depuis ñeenti at. donc mhm. politique léegi dafa dafa doon loolu waaye euh, donc du Sénégal rek. Euh, pour ñëwaat nag ci kaw Sénégal gis nga dafa am lu fii lu am solo c'est-à-dire que ñun dañuy woote woo dëkku diine dëkku euh, ñu ne ñii majorité bi ay musulman lañ ay maanaam majorité bi ay croyant lañ mhm. ay ak ay chrétien dëkk boo xam ne aussi dafa amoon ay valeur dëkk boo xam ne aussi dafa am fu ñu ko teg Sénégal dañ ko naw balaa nga ko xam yow sax euh, Pape Sidy xam xam naa ne gis nga ci lu bari nga dem bitim réew mhm. gis ne leen Sénégalais la gis ni ñu lay fonkee ak fi ñu lay teg ak maanaam des fois référence lay gënal sa biir réew parce que on est quand même le pays de Senghor de Cheikh Anta de Mamadou Dia euh, mu nekk dëkku Boubacar Boris Diop dëkk Cheikh Aliou Ndao mu nekk dëkku am Amsatou Sow Sidibé dëkk bu mag boo xam ne euh, même euh, dëkku juge Kéba Mbaye et mu nekk dëkkoon bu dëkk bu ñu naw waaye léegi jikko yi c'est pas que jikko yi pour man dañu yàqu jikko yi dañu meloon ni ñu mën a mel c'est que léegi euh, médias yi dañ ci gën a teg seen bët réseaux sociaux yi am aujourd'hui l'ouverture communication permet aujourd'hui de voir beaucoup plus ce que les politiciens font et puis dëkk bu ndaw lañ donc nit ñi dañu xamante et dafa am lu fi manqué mooy euh, lu gën a manqué léegi mooy la redevabilité maanaam buñ la dénkee alalu réew nga sàmm ko nga en tout cas nga gérer ko ni ngay delloowee cër askan wi delloo leen ne leen lii kat ngeen ma jox nii laa ko defee nii laa ko defee nii laa ko mhm. defee. gis nga euh, le général de Gaulle euh, da doon da doon génnee sax maanaam li mu doon dox ay li mu doon dox ay sëtam maanaam da doon xaalis xaalisu boppam. dañ ko doon génnee ne lii bokkul ci bokkul ci budget présidence mhm. et waaye aujourd'hui dañ naa la sax euh, da nga war a def politique pour pour génn ci danga war a def politique tey jii pour séddoo ci affaire yi parce que gars yaa ngi séddoo. donc Thomas Sankara bi mu dee 75 000 lañ fekk am. xam nga am na député bu nekkoon xaw ma euh, Suisse. Mhm. dafa jënd kafe ci xaalisu. Euh, Assemblée nationale bi traçabilité wane ne moom xaalis boobu waru ko laal parce que c'est l'argent du contrôle. l'ancien président de l'Uruguay muy <laughs> uh-huh. Pepe Mujica dafa nekk di di dund dans des conditions mais presque misérables alors que jiite na réew. Mm-hmm. Evo Morales bu Bolivie tamit noonu. moom moo dem dëkk ci village bi. moo dem jabaram euh, a la précarité. waaw mais xam nga aussi xam yi rek bariwul maam ils sont ultra dans notre pays c'est parce que aussi am na nu ñuy doxalee c'est parce que aussi peut-être askan wi ñoom ñoo gisee politique noonu. Mm-hmm. gis nga tey jii ku am sa facture ku am sa euh, ordonnance ci koñ. Mm-hmm. doo dem ci imam bi alors que Euh, doo dem ci enseignant bi li ngay doon mooy ci politicien bi mm-hmm. nga ne léegi parce que moom kat boobu comme moom ñun la fi war a nekkal euh, donc nga nga dénk ko finalement say préoccupations et cetera parce que bu ko faj parce que bu ko fajul nga ne dinaa ko sanctionner mm-hmm. et puis toute dernière chose Pape Sidi gis nga bu ñu nommee nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi demee ci mm-hmm. dal parce que nee léegi kat ñun tekki nañ parce que mu <laughs> notion de tekki boobu dafa nekk léegi tekki matériel et non plus en valeur ak en nga defaral réew fan nga ko jëlee ak ko yóbbu loolooy wuruj loolooy euh, lii dëppoowul ak éthique dëppoowul ak déontologie ci lépp loo mën ci jël euh, Kadiana foo si Baboy euh, Maam Ibrahima Mbacké Bastelka Samba Sokafo Samba Safoka Cheikh Diop Dembo ñu ngi ñi may lim nii ñu ngi ñuy seetaan via Facebook te dañuy mën a participer en écrivant des commentaires El Hadji Bàcc Xule Amadjan Lam Mamadou Ly Yaayo et Bathie et euh, Mambala Mbow borom xeer bi borom birig bi donc maa ngi leen di ñaan yéen ñii seetaan ngeen wax ñu seen point de vue ci politique Sénégal ni muy doxee lan ngeen ci xalaat vous en pensez quoi Ahmadou euh, maa ngi lay euh, ziar bu baax Fall yéen ñii seetaan lan ngeen xalaatee naka ngeen gisee suñu politique ñu dikk ci politique u Sénégal jamono ji mm-hmm. pas mal si on peut voir les éléments si on peut voir en même temps les éléments, ce serait cool. Voilà.